ndaanaan yëpp xam nañ ko nekk na émission boo xam ne nii képp kuy dund lamb rek yaa ngi koy bàyyi xel tey jii yaakaar naa ne ñu jëm ci euh, weeru tamxarit ñu dund ko ci jàmm di wax sénégalais yëpp déwéne ci leen ñu nekk ci kaso bi yàlla na yàlla génn fa ñu nekk ñu feebar na ñu wér ñi nga xam ne dañoo ay soxla yàlla na ko suñu borom saafara ci barke Seydina Mohamed ñu jëm ci bés boo xam ne nag dimanche la hmm. di diggante Balla Gaye numéro 2 ak Tapha Tine Alaaji Buur nekk bés boo xam ne nii bokk na ci luy yokku làmb nekk na bés boo xam ne nii axlu làmb ñu koy xaar alaaji buur bisimilah. jërëjëf alaaj sàppali maa ngi lay ziar di la ndokkeel di la wax déwénati ci asura gi mm-hmm. Mm-hmm. di ndokkeel képp ku ñu seetaan mm-hmm. di la wax baal leen ñu àq ndax léeg-léeg alaaj amel leen àq ma amel leen ko ndax àq dafa sew waaye ni nga ko waxee rek fadam ñu jëm ci bés boo xam ne wolof njaay dafa ne woon looy bañ mu yegg si nee bu ko àppal ginnaaw bi ñu ci suñu frère Aba Thiane le grand malfaiteur Baye Ndiaye. Uh-huh, uh-huh. ak Albourakh Evans. gis nga journée yi nga xamante ne ko jot nañu ko jox ci at mi. Uh-huh, ba fas yéene tëjam tëjtale saison am. diggante Balla gay 2 alias Simba. ak Tapha Tine alias Sakandé. bool bool yëpp takk nañu nag. waaw léeg-léeg sax ma denceeg bool-bool yoo xam ne am na fii rek fekk nañ ci bool-bool boo xam ne lu ñu waxul amul. wallaahi wallaahi waaye ñun dañuy analyser rek. waaw mais pour il faut Sénégal itam am ci ñun benn affaire boo xam ne nii tey jii sama diggante ak yow. Hmm. mooy ñun ñëwuñ ci làmb ngir tey jii. indi wax lu neex mbër wax lu neex mbër. déedéet lu ñu gën a indi ci làmb mooy tey jii dañoo ñun benn ambition la ñu am. Hmm. mooy ki làmb ginnaaw dellusiwaat ci làmb. ak yokku làmb ak yokku làmb. waaw te làmb nag yaakaar naa ne kenn moomu ko mais nag Fadam jarbaatu rajim nga. waaw waaw yow rajim seen nijaay la. wax dëgg yàlla loolu xam nga tamit loolu dee ko bàyyi xel ndax léeg nga ëffal xeetu ëffal yoo xam ni. ah, ah léeg gis mbër yoo xam ne wax dëgg yàlla RSS bu njëkk nga. nag nee man li may dundal mooy su ma ñaari fan te kenn attaqué bu du ma nekk. déedéet xam nga yow nee naa la kër bukki nga dëkk. waaw ah, seen nijaay bukki la sa bàjjen bukki la. wallaahi liñ gaay naan day càmm baay càmm waaye waaye mm. buur bërki démb da ngaa nekk wetu ma jàngat ci seen communication loo xam ne nii. Mm-hmm. jaaxal na ma lool lool lool lool buur. Mm-hmm. buur damaa gis Balla Gaye numéro 2 boo xam ne nii bu am lu mu bëgg a wane waat ci làmb te ci Tapha Tine rek la ko bëgg a jaar pour wane ko. waaw nee na ko li nga foog am di Moustapha amul de. waaw ne jàkkaar Tapha Tine ni ko li nga foog. amul <laughs> li nga foog amul. te li ma bëgg a wane mënuma koo jaar ci kenn ci làmb ku dul yow. tafaatin nag buur dama jàngat ci moom loo xam ne nii. Mhm. mooy benn gëm-gëm la am mooy jàkkaarloo bala Gaye de du ko daan ko. est-ce que dana yomb. lu tax loolu. xam nga Fadam damay dellu soit ca la ma waxoon. Mhm. man buur samay wax lu neex. Mhm. dama ni un un lu raar la ci lam dëgg la. Yaxya ñaata yoon la daan Bombardier. ñaari yoon wala ñett. ñaar yoon la doon Mohamed Ndao Tyson. ñaari yoon. Modou Lo. ñaata yoon la doon Eumeu Sène ñaari yoon Eumeu Sène ñaata yoon la doon Balla Gaye ñaari yoon Balla Gaye ñaata yoon la doon Modou Lo ñaari yoon un un à l'exception de Gris Bordeaux mm-hmm. ak Eumeu Sène mm-hmm. seen janoo bu njëkk ba mm-hmm. donk un lu raar la ci lam parce que ñaare ki la jotul daan su ngeen dee dajawaat dafa am benn ascendance psychologique boo xam dafa joué ci seen diggante. mais yow da ngay jàpp ne man dama gis ne dama gis ne Tapha mën naa dindi loolu ci diggante ak Balla Gaye. waa dindeegu ko. da ngay jàpp ne dindeegu ko. dindeegu ko mais waru ko indaale. parce que fi ma d'accord ak moom mooy bi mu communiqué ak Balla Gaye 2 ba ne ko sa xol leerul. Mhm. ndax saa booy wax ci man da nga naan bombardier yi par décision médicale laa ko daane. Mhm. Boy Niang par décision médicale laa ko daane. Eumeu Sène moo bëre moo xeex xeex bi moo daan boppam ne ko sa xol leerul su ma doon moom su ma doon Tapha duma du indaale loolu pare nee na Balla Gaye comme jàkkaarloo naa ak yow wax ko tey laa koy mujjee wax kon cela veut que daf ko garder boobu ba tey te gis nga alaaj sàppali mhm. sport de combat la bataille psychologique est est primordiale la bataille psychologique est précieuse xam nga li tax ma bëgg mu teel a taqaliko ak aspect psychologique boobu. su ñëwee stade. ba ni cëpp ci bunt bi su ko indaalee coow la ci ci bunt ba lay commencé. mooy dañuy xeex dañoo wàññi suñuy nit bu ñëwee ba ci géew bi waa CNG dañuy xeex xam fa lañ mujjee Abdou Aziz Ndiaye jënd ñëpp ci làmb ci. dama lay wax lu ñëwagul de. Mhm. Tapha Tine s'il constant physiquement il est bien boo ko xoolee dangay xam ne Tapha Tine mi pendant tous ces années là mu ngi liggéey doole. man buur dafa am foo xam ne dama dafa jaaxal lool ci combat bi mhm. Tapha bii ñëw ci làmb démb. bi ma gis man signature gis ko muy tout sol sort ma xool ko xool yaramam. xool corpulence xool dooleem xool physique am. Hmm. doo li ma gis nga gis dafa am. waaw. est-ce que li ma gis nga gis. waaw Tapha Tine. dafa am waaw dafa yéex. man fi ma jëm fi ma jëm buur. mooy lépp lu ko Balla Gaye numéro 2 def ci làmb man dama jàpp ne la neex. guddi yi ñu toll xam nga tax loolu. Mhm. ñeent yi mu gën a jafe ci mbër dafa wuy dafa wuy si Tapha Tine ci combat ak Balla Gaye numéro mhm. mooy doole wuy si na ko mhm. ay mbokkam ànd nañu ak moom ñàkkul ñaan te préparé na préparé bi gën Balla Gaye numéro nag lan moo tax Tapha Tine guddi yi ñu toll war a xool ci lii ñu Balla Gaye numéro 2 am lu mu ciy sóoraale wala mu am lu mu ci war a moytu man gisuma ko te saa yoo déggee ñu ne as stafu Tapha Tine ñu ngi moytu Balla Gaye de jour làmb ja wala Tapha Tine mu ngi moytu Balla Gaye numéro deux jour làmb ja ñu ngi moytu li Balla Gaye bëgg dina ko réussir ñu ngi moytu parce que buur Tapha Tine amul dara lu mu war a mën a moytu ci Balla Gaye numéro 2 bu fekkee ne bëgg naa daan Balla Gaye amul dara lu mu war a moytu ci Balla Gaye numéro 2 ndax Balla Gaye numéro 2 mbër mu ko moytu ay avantage am di ibbeeku te lii ma lay wax nii li Tapha Tine xam mooy te fii laa koy waxee buur ma waxagum la sama première gis gum ci làmb ji li ma gisagum hmm. làmb ji ma dañ ko war a njëkkalante. Hmm. doxante ci kaw dañ ko war a jëkkalante hmm. xeex ba dañ ko war a njëkkalante bëri ba dañ ko war a njëkkalante. yii ma lay wax nii buur ku ko njëkk def am nga mille chance pour gagner combat Balla Gaye numéro 2 Tapha Tine. mais Fadam làmb yi géew la. moo tax ma ne loolu ma la wax lépp ci géew ba làmb. làmb la joo xam ne li gaañ yi indi ku ci nekk mu ngi dépendre ci lan ngay indi dimanche. ci làmb ci. Mhm, face to face si c'est bien. Mhm. baax na. Mhm. open press si c'est bon baax na. Mhm. mais naka ngay gérer bés bi. ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk bés waratu leen a jaaxal. ku ci ne bëri nga bés bu mag ba tey. mais cerner Balla Gaye 2 ci bés bu mag moo jafe. buur su la déggee dafa mel ni am na looy moytuloo Tapha Tine ci Balla Gaye. effectivement lan ngay moytuloo Tapha Tine ci Balla Gaye. mu jàpp ni dañ koy xeex. bu mu ko gëm de bu mu gëm ni dañ ko tegal ay ndëgg sërëx Tapha Tine doit être serein le 21 Tapha bés bi fii la ko war a teg Tapha Tine dafa war a calme Tapha Tine war a gëm ni que il doit être le maître du jeu ndax ci fi ñu toll la ñoom ñaar ci seen carrière Tapha Tine daanuwul mm-hmm. Balla Gaye 2 ci dix ans yi carrière am dund na ci ay moment yu baax dund na ci ay moment yoo xam ni favorableul ci moom donc bu fekkee ni que dañu war a nekk ci constance pour mën a aborder bés bi la vingt et un moo war a gën a mën a am posture nekk ci constance su aborder bés bi gis nga gis nga buur combat bi li ñu ciy wax nii il faut sénégalais yi xam ne <coughs> Tapha dafa am loo xam ne nii ci làmb bu ko Balla Gaye amoon du signature ak moom Tapha Tine ñeent yi daje ci moom bu ñeenti yooyu daje woon ci Balla Gaye numéro 2 cent pour cent. Mhm. kon Balla Gaye du bëreeg moom du wax ak moom. waaye Balla Gaye nee na ko li ma jaaxal ne la yow Fadam yow Buur ak Bakary da ngeen naan Balla Gaye su nekkee soixante pour cent soixante dix pour cent. Tapha Tine ne man dama dépassé loolu. waaw Balla Gaye ne man alias Simba bu ma nekkee ci vingt pour cent. xajuma ci foofu la wax ji jëm. mu ñun ñun jóge nañ ci côté côté doole. Mhm. jóge nañ ci côté mystique. Mhm. jóge nañ ci côté bëre ñu ngi ci côté mental. mantal mhm. ba de mooy bés. waaw kay. mooy bés Balla Gaye numéro 2 ci biir géew. il faut nga nga jël sa engagement yow mbër mi. te gis nga Tapha Tine dafa am ñeent yoo xam ne ni sax dur maa ngi koy wax. soo gisee ci keroog bi ñuy def euh, euh, triplex bi maa ngi koy posé Tapha Tine mooy dafa am baat bu ma bëggoon a dégg ci moom te dégguma ko. mooy tafaatin guddi yi ñu toll bokk ci mbari nekk ëpp dynamique de victoire. bokk na ci mbëri yi nga xam ne tey jii ñoom la làmb gën a jox bopp. bokk na ci mbëri yi nga xam ne tey jii mën nañoo ne mu ëpp doole ci làmb. kon kooku tey jii ban message lay génnee ci ñu ko bëgg. ak ban message lay rassuré. waaye xam nga moom. waaw yàqul ay waxam. Mhm. nee na buur tafaa dañ ko yar. Mhm. jàngal ko alquran. garab ga ma daan toog rek reefaan di ca jàng alxuraan. doy doy na ma kilifa. Mhm. Balla Gaye de du ma changé waaye li ma jaaxal sàppali. Mhm. yaa andi chouroche. Mhm. lan moo tax Tapha Tine li ma Balla Gaye wax su ma ko waxaatee ma wax ko la ma ko wax. lan lañ war a waxati wax ju ñaaw am na fa. du fa jóg <laughs> man yow tamit man am na wax ju ñaaw ju jib. am na wax bu ñaaw bu jib moo tax laajaat naa ko tafatin ne ko duñ ca jaar lii Balla Gaye wax la ba nga ne boo ko waxatee am leneen lu xew waaw bu la ko waxee ca biir géew lan moo mën a am waa kay léegi nag moo tax moo tax sa côté mantaal ba sàppali côté mental ba ca biir géew ba tafatin keroog bi mu bëgg a gagné la bataille psychologique contre Eumeu Sène dañuy wër géew géew ba ñu dalante ku ne jël pause dóorante korpañ a tàkk gars yi atte Eumeu Sène orgueil ba yéeg Tapha ne jàpp naa ko ndax ba ñuy dajee ci ay signature ba tey lii laa doon wër mënu ma ko am keroog boros naa ko ko TFM ne ko ne ko bi ma leen nee puusal da ngay puus ama ne ko su ma puusul mën ne ko ma dóor la ba nga dee ama ne ko waxoo dëgg waxoo dëgg Tapha Tine ne ko ba booba ba mu ngi aspiré Eumeu Sène psychologiquement loolu moo indi defetu ama Sène ndax Eumeu seen bi mu jëflante ak Tapha ba Tapha Gor Eumeu mënoon def ak act bu simple pour daan ko. mais il a voulu humilier Tapha Tine punkal mi yeewu. beneen bi des alaaj sàppali. ñëwul buur. nee na laaj naa ko woon bi mu ne ma toog naa dix ans daanuwul ok waaye cek bi bëgguma ko dama koy waxaat. lan mooy cek bi buur. juróomi minute njëkk yi waaw. Balla Gaye 2 fera le oh. gis nga faram. buur yaa ngi sama xel mi. maanaam Balla Gaye de la mu bëri woon ak Tapha Tine affiche ba affiche ba. buur yaa ngi sama xel bi cassette ba cassette ba. yaa ngi sama xel bi boor ne prix xam nu mu koy def. wallaahi da koy photographier. mooy da koy jéem a attirer en profondeur psychologique pour déclarer les mauvais souvenirs de Tapha seen combat bi mujj. buur sànq dafa am lu ma la dugal nee naa la combat Balla Gaye numéro 2 Tapha kii daan combat bi kii daan combat bu dimanche bii. Hmm. mooy njëkk song mooy njëkk a xeex mooy njëkk a mooy njëkk a buur combat Balla Gaye numéro 2 Tapha Tine hmm. du combat bu mbër war a trak du combat boo xam ne ci ciy conseiller mbër. waaw waaw waaw buur combat Balla Gaye numéro 2 Tapha Tine du combat boo xam ne nii muy Balla Gaye di 2 Tapha Tine ay consigne moo leen di gañaloo combat bi amul. Hmm. buur ñu ngi doog a dem ci combat boo xam ne combat engagement la. Hmm. Balla Gaye numéro 2 Tapha Tine seen lamb ñoom ñaar làmb engagement la ndax Tapha Tine engagement yi koy war ci diggante ak Balla Gaye dina ko jël ndax Balla Gaye numéro 2 nii Tapha Tine toll nii Tapha Tine toll ci ay dynamique jëf victoire ndax Balla Gaye numéro 2 engagé mu am ci diggante ak Balla dina ko jël buur combat Balla Gaye numéro 2 Tapha Tine mm. ku ci déglu consigne boo ñëwee daanu sàppali ma laaj la ñëwul su Balla Gaye daggee jëng yi dox ci kaw dox ci kaw Tapha dugg na ci ay avantage am mm. waaye ndax Tapha Tine war naa may Balla Gaye numéro 2 mu dirige ko buur jërëjëf sàppali xam nga waaw ndax Balla Gaye xaayaan ku dégg séeréer ku dégg séeréer ndax Tapha Tine war naa may Balla Gaye numéro 2 mu am lu mu koy dirigé ci biir làmb ji est-ce que Tapha Tine warta inverser les rôles waaye est-ce que maninam la kooku tamit problème mooy arbitre ne prip dafa dagg jëng yi. Oh. dox song la est-ce que mani nam la. foofu tamit problème am na fa. déedéet. waaye li taxoon Tapha Tine dem Côte d'Ivoire <laughs> préparé ko côté de mental. Hmm. ndax préparé wul lu bees lu bokkut ak lim yoroon bu njëkk. est-ce que ña nekk Côte d'Ivoire ñoo mën ña nekk INSEPS. Moussa Fall connaît mieux que Balla Gaye que son tubaab la ko que Tapha Tine Moussa Fall a préparé Balla Gaye 2 sur presque quatre combats combats yi ko préparé yëpp bala Gaye pratiquement dafay am ndam. Hmm. moo tax ma ni la am na avantage am na ay méfaits mais li may bañ mooy Balla Gaye bu mu ber bëri ba wala mu ber xeex ba <laughs> bés bu beree xeex ba sapp jaaga tafaatin dina ko dóor mu daan sàppali buur li ma wax ma waxaat ko nga dégg ko dolli ma ma dégg Balla Gaye de bés bu sampee jaaga tafaatin dina ko dóor mu daan Balla Gaye 2 dafa am avantage yu ñambaan bëre beeg xeex bi na mu bëree woon ak moom 2013 Tapha Tine Balla Gaye la mu indi woon ak li mu war a indi war cee yokk waru cee wàññi warul demee conseil Père Diaw warul demee conseil Moussa Fall warul demee conseil Lamine Golo warul demee conseil Moussa Mbaam warul demee conseil Balla Fokk Cher warul demee conseil yu kenn mooy doit prendre ses responsabilités pour moom xam ni la mu wax. loo may may ak yaa oustaz dégg na ko. loo may may ci Tafatine. Tafatine a l'obligation de fi mu toll. <laughs> de ne pas rater le train. déedéet déedéet ñemewul loolu. Modou loo dégg na roi des arènes. ñaare ma dégg na ko. Eumeu Sène dégg na ko. wallaay ndeysaan dégg na ko Bombardier dégg na ko. dégg na ko bala Gaye dégg na ko. à l'âge de 26 ans lan lañ ëppalee mu Tafatine. jërëjëf sañ-sañ bi dafa lu muy moytu ci bis dafa bari. mooy bëggul gàcce ndax a séeréer refo a séeréer refo séeréer la buggul gàcce te làmb bëre ak bëre daan ak daanu buur saa yoo déggee ñu ne tafaatin am na dara lu muy sóoraale ci li mu àndal saa yoo déggee ñu ne tafaatin mu ngi xalaat ne Balla Gaye ko daanoon saa yoo déggee ñu ne tafaatin mu ngi sóoraale ne bés bii ma jëm su ma daanoo fan laa jëm hmm? mu ngi dugg ci ay peesam bool bool yenn nañ bés de waaye waaye bu ñu ko yenn tafaatin waaye bu ñu minimiser Simba parce que dama gis seen communication gaynde gu màgget la Fawzeyni Simba lii moom maa la biir bi day lang lii maa la koy feebar di ko lii la koy wax nañu moytu yooyu na maa lay wax li ma lay wax benn mbër mi tudd Sénégal ci côté kattan di tudd tafaatin di ko teg sa kaw mhm. waaye daam bu ma leen doon wax Balla mu nekk soixante dix pour ci làmb mhm. mën naa daanaan képp daan képp kuy nekk daanaan ci làmb ku ci ëpp ndoxtu ñaari ndoxtu yu bëri bokkul. Tapha Tine bëreem en général day taf laal li wala mu jàpp sa ngeen mu roof loxo droite am laal la ba nga sës waaye loolu balaa ñu cee ñëw ci côté bëri ba damaa bëgg ñu bàyyi bañ open press ba suba ba pare. waaw waaw d' accord loolu dañ d' accord bëgg ñu bàyyi ba open press ba pare ñu jàkkaarloo waat. d' accord naa waaye le retour le retour de Thierno Thierno Gueye. loolu dañuy coppoon après open press. après open press après open press waaye li mooy. diggante ma Balla Gaye du komba bu ñu ko war a njëkk a song digganteem ak Balla Gaye du komba bu ñu ko war a njëkk a xeex. Hmm. ndax dégg naa Tapha Tine ma ko ci direct bi ne man kenn mënumaa teg pression sama combat. su ma neexee damay réservé wu su ma neexee ma dem latéral su ma neexee ma avance. dégguma loolu de. wax na ko. Ah, wax na ko waaye dégguma loolu man waaw man bëgguma loolu. waaye dégg man dégguma loolu Tapha bii ngay bëree. Hmm. du komba boo war a xaar ci Balla Gaye mu def ay maninam. déedéet. bés bu ko Balla Gaye njëkkee réactif billaahi wallaahi tallaahi erreur la dana ko yee fanam bés bu ko Balla Gaye njëkkee réactif te gis nga gars ñu ngi naan Balla Gaye de bi Balla Gaye baaxul Balla Gaye baaxul ah, Balla Gaye baaxul Balla Gaye bii di dajante ak Tapha Tine mooy Balla Gaye ba daje woon ak Modou Lo habitué waaw gars yi Balla Gaye numéro 2 bu takkee ngemb première dix minutes Balla Gaye numéro 2 am na bëri bu ci daan mbër am na xeex bu ci daan mbër am na ay pexe ci jumloo mbër kon nag diggante Balla Gaye numéro 2 Tapha Tine mm-hmm. combat la boo xam ne nii àdduna bépp mm-hmm. bépp bépp bépp ñoo ngi koy xaar mm-hmm. waaye buur foofu boo amoon loo ci dolli lan nga ci dolli xanaa li ma ci dolli rek alaaj sàppali mooy ñu ngi jëm ci bés bu rëy boo xam ne ça restera gravé dans les annales de la lutte wallaay ndeysaan kan lañ ci àndaloon Aba Thiane kan lañ ci àndaloon grand malfaiteur kalancaan loon bàyyi aala njaay aala kuruma jigéen mm-hmm. nga xam ne bi mu ñëwee ci làmb ji ak alburax events wane na maninam te am na yeneen yu muy togg waaye nag bés ba na nga jàpp ne yemul ci diggante Tapha Tine rek ak Balla gay maalo seras war na cee jàkkaarloog naan di faal waaye balaa dara xew mm-hmm. na nga xam ne combat Balla Gaye numéro 2 Tapha Tine mm. mu ngi def commencé def impact ci combat Modou Lo Siteu ah foofu foofu nga tool déggoo Balla gay ne <laughs> waaw su ma sañoon waaw gàddu empereur bi fii gàddu ñaari roi fii ma ne ko bëgg nga dugg jàkkee bëgg nga si waaw <laughs> ah, ñoom Mala Omar <laughs> déjà ñoom Père Ba <laughs> ah, tey bu duggul ci jàkkee yi ci jàkkee yaa oustaz dina dugg ci jàkkee jee ci jàmm gën nga xam ne imaam Maxime Bargane fa ne. waaw waaw mënta <laughs> lañ koy wax Senghor. <laughs> donc waaw donc combat la boo xam ne dafay définir yeneen ni. waaye nag ñu ngi nuyu sa waa ji Alaaji Bada <laughs> naa ko nee na ma Bourguel mi nga xam ne da ma ne ko wax nga dëgg de man a théâtre naa. wallaay def naa la koor gi. waaye moom it Alaaji Bada Jonn ku baax la. wallaay ni ku baax la di nuyu waa Réfane. di nuyu waa Kaba. wallaay ndeysaan di nuyu waa Pofon Bada Jonn di nuyu bool bool yëpp Bada Jonn ak waa Nengleer sama dëkk Jonn Bada Jonn mhm. yoon laa ko ku baax ku yàlla baaxal la grand cuun waaw grand cuun grand cuun ak grand élage waaw ñu ngi koy nuyu nee naa ndaanaan di nuyu nag Père Diaw waaw Tapha Tine sa waa ji Tapha Tine dafa dem ba bëgg a nekk professionnel ànd ak boroomi xel. waaw nee naa mbër kenn kenn du ko gunge ay wax. déedéet du nuyu waa tund bool. ñi gën a ñi gën a dangereux ci staffu Tapha Tine. Mm, grand cuun la. ñi gën a dangereux ci staff Tapha Tine ak grand élage la grand grand ba da jonn ak ñooñu doon dégg ñu communiqué ak le lion blanc côté Balla Gaye lion blanc Eric Favre le côté côté Balla hmm. ci gën a dangereux hmm. ba léegi géggul leen ñu téemi waaw Père Diaw waaw dégguma ko xoolal dama la ñu buuse déggul déggul li ma la wax xanaa li ma lay wax nii man naa la loolu faram waaw li ko waral mooy combat bi solution combat ba mu ngi ca biir géew ba <laughs> buur bu subaa bu ñu defee open press ba pare eh. ba ci suba ga. Hmm. bu ñu xëyee dañuy dajawaat. nii foog ñu dogali mënut a dañuy dogali waat. foog ñu dogali bu ñu dogalee nag mooy tàggatoo ba. waaw mooy tàggatoo ba te la ñuy analyser làmb ja nag. jëm ca bés am ci géew ba jëm ca bés ba sàppali. waaye daal di wax sénégalais yëpp daal ñu sa xarit Lat Diop. waaw ah président Lat Diop. Lat naan mburu bi. waaw naan xam ne nee naa ko ay bu doon tey bu doon tey. ah. ah. <laughs> la bataille de Dank aura lieu waaye nag ndakaaru hmm. nañu génn ëmb tafatin waaw kilifa yi fa nekk hmm. dalee ko ca meeru ndakaaru waaw Barthélemy Tooy Dias Barthélemy Dias waaye faram bul fàtte ni bés bi Pape Ibrahima Diagne la ñu ko tuddee. Eh, Marème doomi Alaaji Bassirou Diagne Marème. Seydou Mouhamadou Mansour. Satub Jàlla Satub ah, Maput la. te ñàkk ma te ñàkk nee da nga def lu rëy. da def lu rëy lébu yi kenn du leen génne ci dara. Baye dama ne ca doj ba ca ngor ba ca pom ba ca ndar. war ci yéen kuy dana la wuy si. yàq jëf. Mm, mm. ca déem. guy salaan guy salaan. Mm, fu lébu ne ci réew mi dimanche di nga gis cosaan gis aada. waaye nag Alaaji Ibrahima Diagne Marème ne ko. 15 heures na fekk convoi am départ pour jëm si arène nationale. loolu mënta ñàkk. ndax làmb ji 19 heures. lañ koy siffler. dina fekk Balla Gaye ci digg géew bi. voilà dina fekk Eumeu euh, Tapha ci géew bi. Fadam man may ambassadeur pâtissier. waaw buur dégg naa da nga def pâtissier matt fa lu ma yëg. man may ambassadeur pâtissier. kon jël naa Père As Ndaw Ndoukoumane man. waaw garaawul. jël naa Ndoukoumane Groupe. ma ne Akel. maa ngi ci biir Liliane. man man maay ambassadeur de la pâtisserie. waaw non man sax man fan laay bokk man ko Joker Chaîne. Ah. beurre Adja. <laughs> Chocopin. je suis l' ambassadeur. waaye Fadam. waaw ndokk yàlla tap tap seen. kenn du moom. la xam nga ne yaa leen ñoom rek. ñooñu ñu sponsor ñoo ñu ma ñooñu sponsor yi man yow. ak alaaji Fomar Bakar benn sponsor la ñu am. maag hmm. buur muy tap tap seen. gisuñu Zador. gisuñu Zador. gisuñu original. gisuñu original. gisuñu Cobra. gisuñu Cobra. gisuñu ajaa gisuñu Adja. Baye léegi. day kot Baye moo gën a nekk malfaiteur ñëpp. day kot du paas mais nag xam nga man banaa ko. non Baye moom lamb ji ñu des ak moom. waaw man man man man ci. déclaration bii ñuy def nii Baye Alain Ndiaye lamb ji moo ñu dese ak moom. Fadam jàpp bu ndax tey jii mënoo am ñaari malfaiteur yu toll nii. ah. mosuñu am benn sponsor. bu ñu benn sponsor benn. benn. Fadam yow heure ma bàyyi naa bàyyi nga ne ma doo ko bàyyi bu làmb ji passé dinaa Aziz Ndiaye tamit yaakaar naa lépp lépp moomam. dinaa def conférence de presse. incha allahu la 22. te lépp lu ma wax danaa ko def. jërëjëf. jërëjëf sëñ Mbor. kon gaa yi yaakaar naa leen ñu ngi leen di ñaanal jàmm. waaw. di leen wax rek ne leen ne. ah cere ji jeex na. waaw Fadam tey gis naa nga laal cere ju niin. waaw cere mais cere ji. dem waaw waaw kooku cere tàllaale. ah ñaax rek loolu maa ngi laa nuyu. ak baax. le si du président de la république. ku ko bañ dama ne. buur lii ma lay wax lii ma lay wax nii. Hmm. réew mi rek ñoo koy booy boo génnee bitim réew xam ne mooy waaj te li ñuy wax waxuñu ko pour nga jox ñu dara loolu maanaam dañ koy wax de cœur. waaye dama ne képp kuy téye téléphone naturel képp kuy téye téléphone ci réew mii. li si nag ah. ñaa mooy sa baay mën naa ko wax nee naa ko wërsëg am day ba dajale ñaari président de la république l'homme de la mm. nation le président Abdou Diouf mm. ak le président de l'espoir le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye wallaay ndeysaan fële ca Paris mais ku filmer image yi le tour du monde viral France 24 CNN CFI TF1 Walfadjri RTS 1 RTS 2 7 TV lépp ñu ne c'est l'œuvre de Niakhar Ragne Lo xam nga lu waral loolu taalibe Mawlana Cheikh al Islam xam nga lu waral loolu bëri na lu nit di def di sotti muy sotti. Hmm. bul yaakaar ne mën a liggéeyam la xol bu rafet la. xol bu rafet la. asalaamaaleykum wa rahmatullah. tafadalan mashhuura Daba Bio présente la gamme cannelle la gamme cannelle am na diw bopp ah diw bopp cannelle pour sa karaw gën a gudd dundal ko fexe nag lépp loo xam ne da siti mu dindi ko dindi lépp luy karaas sa bopp ci boppam karaw be cuir chevelu bi mën a dund am nañu huile cannelle ngir nooyal sa karaw sa karaw di nooy dindi karaas yi huile cannelle mooy huile bi nga xam ni mooy saxal sikkim ndaxte kat ñépp dañoo jël sëqal sikkim fu mu toll nii am nañu shampoing cannelle à base d'aloe vera ak ginger setal bopp di ko dundal di dundal karaw gi karaw gi gën a rafet waaw waaw di dindi ay teeñ dañuy ak yu ni mel am nañu it pommade cannelle ah jigéen ñi déglu leen de ndànk laa koy wax ci suuf du ma ko wax ci kaw de day yokk hanche di yokk ginnaaw di yokk tamit dënn bu leen ko wax kenn am nañu tamit loolu nga xam ne moom mooy tax say lèvre di rose di nooyal tuñ crème lèvre cannelle Saraba Bio 77. 161 12 12 77 161 12 12 ak Saraba Bio moo leen indi produit cannelle bi mu mujj ñëw gën a féete xale topp doole ci marché bi. nekk benn tali ginnaaw école Madiaye Sall.